sëñ bi Modou Mboup ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi fay. yow yaay secrétaire général bu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES MEDES boobee kon mooy amal euh, lii di forum du premier emploi ren ji nag mu war a nekk ñaar fukk ak beneel bi yoon ngeen koy amal euh, lan nga ñu mën a wax ci bile ndaje. Euh, jërëjëf sëñ Mboup ndaje mi ñuy waajal dafa nekk pour ñun ndaje mu am importance. parce que depuis depuis vingt et un mu nekk dañ koy dañ koy organiser daaw jéeg dañ ko def ndax mbas mi ndax Covid bi ñu ko woon def mais après am parce que da ngeen seetlu ne Sénégal euh, dafa ay xale yoo xam ne amuñu xëy amuñu liggéey ci dëkk yu mag yi comme ci dëkk yu ndaw yi. Mm-hmm. ñu seetlu ne boobu phénomène aussi dafay gën a law gën a jëm kaw mais nag phénomène bii nga xam ne mooy phénomène chômage. nga xam ne chômage moom mooy jur euh, mooy engendrer pauvreté mooy engendrer précarité mooy aussi euh, fexe ba mooy mooy fexe ba ndaw ñu bëri jiitu ci loo xam ne euh, du noonu donc dañ ko war a xeex xeex bi nag dafa war a romb suñ suñu ngëm-ngëm xeex bi dafa war a transcender aussi suñu option politique xeex bi dafa war a transcender suñu philosophie yi yi ñu nekk nekk loo xam ne réew mi yëpp ñoo war a taxaw manko nekk benn dànk pour taxaw jàkkaarloo ak euh, chômage bi sax ba suñu ndaw ñi suñu doom yi suñu jarbaat yi mën a am xëy ndax am xëy moo tax nit ki jot dignité ndax moo mooy tax nga am indépendance économique hmm. mooy tax nga mën a sa bopp mooy tax aussi nga mën a dimbale say waajur moo tax aussi nga mën a bokk ci société bi bokk bi nga war a bokk moo tax am xëy pour ñu dafa am maanaa topp moo tax ñu jël suñu alal jël suñu doole jël suñu xaat di ko si pour dimbale ah, lan moo ci war a nekk lu bees maanaam particularité bi ci atum ren ji xam nga ak maanaam li ci li bees moom ñëpp xam nañ ne chef de l'état daaw dafa après événement mars yi uh-huh. taxaw xamal ñu ne xam na ne événement yi li ko jur chômage chômage yu ndaw li seen ñakk liggéey seen ñàkk xëy seen ñàkk yëngatu am na ci responsabilité donc mu ne boobu question naam daa fonkoon naa ko waaye dinaa gën a fonk dinaa gën a jox këdd donc boo wootee benn ndaje jam ñaajo si kat ndaje ma xam ne léegi mbirum ndaw nii seen xëy lépp loo xam ne am na ko comme doole boobu loolu nañ ko yokk ngir décision ne quatre cent cinquante milliards de francs CFA na ko génne ci budget bi ñetti at mu nekk at mu nekk cent cinquante milliards pour jagleel ko uniquement question xëyu ndaw si loolu di décision bu forte donc suñu forum bi en fait mu ngi tenir juste après yooyu décision donc mën nañ ne forum bi dafa nekk en fait moyen d'exécuter politique présidentielle ci ci dans l'emploi maanaam dañuy jouer suñu wàll dañuy liggéey suñu wàll dañuy def suñu wàllu ko li nga xam ne moom mooy engagement bi ñu ñëpp war a am pour ndaw ñu mën a mën a am jot loolu mooy premier particularité bi bi mooy aussi ñëpp xam nañ ne problème employabilité day am maanaam léeg-léeg ndaw bi dañ koy formé waaye su génnee pour mu am liggéey bu méngoo ak li mu jàng léeg-léeg day day day day jafe foofu aussi ñun euh, da ci def l'accent def nañ ci ay l'accent def nañ ci ay plaidoyer def nañ ci ay ay rencontre ay forum pour fexe ba xale yi gën a mën a ñoom seen formation gën a mën a prêt pour euh, jël poste liggéey liggéey ko ni mu ni mu ni waree donc yooyu question daf ñu daf daf ñu soxal parce que dañoo jàpp ne euh, réew mi ñu nekk ni ñu ñoo ko bokk te suñu bëggee réew mi ñun ñëpp ñu am jàmm il faut lépp am jàmm ndaw ñu am jàmm mag ñu am jàmm suñu bëggee suñu réew mi am dal il faut ku nekk fa nga nekk liggéey am loo dunde am loo dunde sa njaboot am loo tedde suñu bëggee réew mi lépp nekk ci tamkiin maanaam lépp nekk ci euh, kenn fitna wàññeeku fi il faut aussi ñu nit ñi bopp surtout ci wàllu liggéey ndax liggéey mooy libéré nit mooy tax nit ki gëm boppam mooy tax nit ki xam boppam mooy tax nit ki boole boppam ci société bi. Hmm. ndax mu ngi xëy di liggéey di bokk donc ci le mouvement d'ensemble de la construction nationale. Hmm. Euh, ñaata ndaw la ñuy xaar ci édition bu ren bi nag. en fait euh, depuis quelques semaine hmm. xale yi ngi ñu ngi judd ñu inscription yi ñu ngi ci mille cinq cent nit donc mille cinq cent ndaw. góor ak jigéen. parce que dañ ko aar sax ne ko dana ko fuuf ndax euh, fi mu nekk nii forum mooy ndaje ñi gën a Sénégal bu ñuy te jaglee ko xëyu ndaw waaye nag ñaari fan dafa gàtt mënoo cee euh, encadré plus de mille cinq cent jeunes leen ci organiser leen ci ay entretien accidentique dafa gàtt trop moo tax pour vraiment ñi mën a toppatoo ñëpp na mu waree mën a taxaw ñëpp na mu waree moo tax ñu arrêté lim bi ci mille cinq cent mais suñ ko bàyyi woon mën na dem sax ba cinq mille voilà. ñooñu nag fu ñuy bawoo ndax dina am ñuy bawoo ci biir réew mi lu mooy Dakar. ñëpp fépp la ñuy bawoo ci quatorze régions yi. Hmm. ñu am jóge Louga Diourbel Kaolack Fatick Kaffrine Sédhiou donc ndaw yooyu fépp lañu jóge di di ñëw. Hmm. suñu ñëwee donc euh, parce que dañu am yaakaar ci bi. Hmm. ñun tamit nag euh, euh, xam nañ ne dañu am yaakaar ci ñun te am na xam ne suñu Dakar mën naa am dañu am ay problème lekk yooyu donc forum bi pendant ñaari fan yëpp moom mooy joxe mooy assurer restauration forumiste yi. Hmm. xam nga donc maanaam ñaari fan yëpp ku ñëw ñoom ñoo la jox. nga ndekki ñu jox nga añ. Hmm. su ngoonee ku nekk dem dem dem si kër ba suba sa ñaar fan yi. Hmm. moom noonu la te nag euh, forum bi benn ndaw bu ci bokk fayul dara. Hmm. kenn génnew dërëm fay ko ñu ñu ci suñu alal ci MEDES. suñu alal bopp suñu ñàkk bopp nekkat ñun nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi MEDES am chance am entreprise am chance yàlla ba sëtal ñu lu ñu yore suñu bopp ba mu def loolu def nañ ko jël nag suñu jalbaat yi suñu doom hmm, hmm, hmm. Euh, léegi nag euh, mu toll ci ñaar fukki at ngeen koy amal boobu ak léegi euh, li ko tax a jóg cause bu noble la waaye ndax am ngeen yenn saa ay jafe-jafe ñi ngeen di jànkonteel ci mbir mi. waaw xam nga jafe-jafe bu ñàkk lépp looy liggéey foog léeg am ci jafe-jafe. ñi def bi ñu doo tàmbali forum bi ñu bari dañu bi du dem léegi ñu arrêté ko waaye nag ñun mais forum bi ñun dañ ko gëm kon nag su taxaw ce hmm. qui depuis l'an deux benn at rek la taxaw benn at rek mooy ñu nekk daaw ci mbas mi hmm. daaw daaw ci mbas mi la defuñ ko ndax bañ contamination yu bari hmm. mais à part mu nekk euh, def nañ ko ak mu nekk suñ ko defee au moins ay centaine de personnes deux cent trois cent daan ci génn amee contrat de travail soit contrat de travail de travail déterminé soit contrat de de stage. Mm-hmm. di fa di fa di ak mu nekk nag euh, très souvent a ko sànq président Mbagnick Diop nga xam ne moo problème bi moom moo ko initié. Mm-hmm. xalaatam la moo organisé. day dem fu bëri ci Ndakaaru ci banque yi ci assurance yi ci bureau yi da def ay ay jeunes ko nuyu ne ko man sama place bi ma nekk nii te forum ba ko amee woon donc maa ngi sant ba tey ci mbedd ay nit ñëw nuyu ko nuyu remercier ko ne ko man forum si laa woon ak foofu laa foofu laa foofu laa amee sama sama xëy mm-hmm. donc loolu satisfaction la dafa def ko xamul mu ñëw nuyu la sargal ne la ko yaa ma dimbali ma am xëy loolu ku mu loolu mooy suñu satisfaction hmm. waaw loolu mooy suñu mbégte mooy gis kat même nañ ko ba mu mën a am xëy dimbale nañ ko ba mu génn ci pauvreté dimbale nañ ko ba mu mën a taxaw ay waajur ndax ñooñu tamit ëllëg dañuy fàttali medees parce que tamit euh, ku la taxaw ba nga am xëy euh, bu waratee euh, tëgg lu ni mel waroon nga mën a dellu Euh, dala ko njukkal waaye tamit euh, mu nekk ab exemple pour euh, forumis yu bees yi. waaw am na am na ñoo xam ne année bu nekk dañuy ñëw suñuy def témoignage. Mhm. xamal ne ñoom ay at ci ginnaaw nekkoon nañu mhm. foofu la amee seen premier contrat de travail. ba ñenn ci ñoom léegi nekk nañu ay kilifa fi ñuy liggéeyee. Mhm. nekk te dañu ñëw dañu ñëw di ko di ko di ko di ko témoigner am sax ñoo xam ne si ñoom nekkoon nañu solo ñu ñu scientifique dañ fa bëri ba nekk dépression raw hmm. ñu mën a saytu te chaque fois lañu rappelé na ñu nekkoon nekkoon nañu solo ñu ak sàngam xam nga loolu pour ñu mbëkkale deuxièmement aussi ñu ne dinaa leen nag attention yéen da ngeen nekkoon diggante nekk jafe-jafe on vous a tendu la perche hmm. on vous a tendu la main ngeen génn ci ngeen génn ci léegi yéen na ngeen am xel yéen itam ñi nga xam ne ñu ci seen suuf rak seen hmm. jabaat yéen daal ñu seen loxo yi tëj leen ñu fekk ba ñu fekk si leen hmm, hmm, waaw boobu seen warul dafa nekk une chaîne xam ne fooy bëgg a jaaroon ba yàlla am ci xëy yow tam bul fàtte ne yow am na ñoo xam ne bëgg nañ xëy suuf sox soxla nañ la su ko defee yow tam nga taal sa loxo pour ñoom tam nga dimbale mu ngoog mu ngoog muy lu am solo ah, MEDES nag ngeen nekk ci secteur privé bi ah, di ci bay seen waar lu ama am solo ah, ci occasion xew-xew bu mel ni forum du premier emploi ban kàddu ngeen yëkkati jëmale ko ci Sénégal waaye tamit surtout ci kilifa yi. waaw mooy xëy mi nañ ko def priorité. Hmm. ndax emploi dafa nekk feebar soo amul ci dëkk day nekk feebar te suñu duggee am jàmm. ñu bëggee réew mi am dal dañoo war a képp ku fi yeewoo nga am loo jàpp loo jàpp na liggéey moo la ko euh, mën may hmm. kenn ci ñun warta am mbégte warta jàpp ne moom réussir na mission am su fekkee ne koo xam ne amul ne amul lu mu reere hmm. am boobu boobu mbégte mbégte bala am saa boo gestoo gis ku mel ne yow nga xam ne kat am na lu mu suturloo am na lu mu dimbale ay mbokkam ay waajuram ak ay ak fa mu dëkk mm-hmm. mais benn Sénégalais warut a kontaan warut a dëkk tant xale yoo xam ne amuñ dara amuñ dëgg mm-hmm. kon nag ñëpp dañoo takku jël xeex contre ñàkk liggéey def ko suñu xeexu bakkan mm-hmm. boo xam ne moo romb suñu intérêt yi moo romb suñu ngëm-ngëm diine yi moo romb suñu ngëm-ngëm politique Mm-hmm. nañ booloo taxaw def front front boo xam ne dafay solidaire ñu xeex contre sous-emploi xeex contre ñàkk xëy ni xalal suñu loxo ñi nga xam ne ñu ngi suñu suuf mm-hmm. te soxla ko leen dimbale dimbale leen jërëjëf kon euh, yow yaay secrétaire général bu mouvement des entreprises du Sénégal MEDES sëñ bi euh, mbëpp ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup